زماني نجيت آمين Zana. Govinda mesa. This one. ouverture gars yi na yaatu waay. di génn ànd ak jëkkëram ji baax gi sëñ Askia Touré ndeysaan reculez may nañu ko gis ngeen sono un bajo. Yo Lo sono un bajo. Aquele que vai fazer lá foi bem. Eu me mulher. Para se eu vou é que seja o perfeito. Pegue aqui, pegue lá, pegue. Ah, peguei aqui, ó. É, não. Não.

I want my cant ak benn la wane ñu ngi ci yow moo jot yaa ngi ci. ah expliqué ko. façon jus bu ne am na. naan naa fi cocktail bu ne. cocktail yi am fii États-Unis rek laa. dégg nga ko moom cocktail de valeur di mu taxaw moo ko defal waaye. di salaamaaleykum maa ngi leen nuyu ñëpp. kontaan orange ananas grenadine. jus naturel kese la. Khalil Khalil. Eh, Okay. Senin askıya atıyor. wàññeeku ñu dolleeku parce que affaire yi moo ko changé wu mu àttanul moo tax. ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem voilà voilà ñu waaw saa yi fuur mën a jigéen directement fanaanu fenn directement la. waaw nit xool as yow kenn du yow. ñam naa ci sax kenn du yow. ma ne xëy baax yomb na waaye dëkk caa jafe soxna Ngoye Fall yàlla sa jàmm yàgg nga àndante soxna Daba Ndiaye Koundé àndante bu rafet lu ma mën a neexul barki yow kenn yow yaa bëgg ñëpp. 300 béyee kees yoo nekkul yoo nekkul ñu ngi koy def wallaay dégg ngeen ko moom yëkkati ay kàddu naan sama yaay sama xarit waaw du sëriñ bi tamit sëriñ bi baa ngi ne loolu ngoon la après dem tamit ah non nañ fa dem rek géej eh. yaa ngi nii géej ah, yaa ngi nii sopp yaa ngi nii kontaan naa yoo ma mel ñëpp yow sa jib sa jib maa ngi vraiment yàlla na yàlla na mooy jobaa ñooy say sopp ñooy say fan kontaan naa trop Macron Macron merengue, cupcake, cupcake, cupcake, et le pièce célèbre du gâteau. Ayam gue dah. Bila wah ini dekoran bang. Atai atai jumlah tebar kalah bakkan direktur dari siapa itu baik nah ya Tuubaa nah, ada kisi waa Matam kese kontaan nañ nag ci sal, yang mat na lépp nee na daañu faal yàlla nañ ko yàgg mën barke Cheikh Xadi ndax bu fekk téeméer ak def nga li Serigne Touba digle bu ñu paree ngay nee na leen day sant Serigne Touba day sant Serigne Touba day sant Serigne Touba day sant Serigne Touba day sant Serigne Touba. kaay si ñu taxaw kaay Modou Mbaye kaay reculer reculer reculer

के द्वारा moo gën a dimbali baraana ci mbooloo te jëlee ko njëriñ la am njëriñ dañ koo déglu di xool la amul njëriñ te nekk yaa ne màggal sëñ Tuubaa gi yor yor bi la ba def la ngay def di dem ba seen kër loolu mooy yor yor yor yor boobu itam sëñ Tuubaa yor yor la fi jëlee saa bu saa bu tàmbalee ma ngay jàngal dégg na ba alxuraan ba noppi bokk yi nanu bàyyi yëpp ndax kat sëñ Tuubaa jàngale ñu nekkee mooy ci jotaayu way texee ni jotaayu way texee ni mooy jotaay nga dem ci jotaay ba jóge ko ba jëlee fa benn mbëri